di leen uh, ndokkule ci bis bu tedd bi di leen ñaanal jàmm di ñëw uh, niñ ko baaxoo defee ci ajuma yi di laaya biirante ci sunu biir ci ay tem yoo xam ne jàpp nañ ne uh, yu ñu war a jàngat la gën koo bàyyi xel ndax dafa ànd ak dund gi ànd ak ak njullite looloo tax ñuy wéyal waxtaan yooyu tey jii nag ñu ñëwoon ci wax euh, waxtaan wi ñu ngi ko duppee yitte yitte ju ju kawe yitte ju kawe mooy li ñuy tuddee euh, ci baatu araab alhimma alhimma al uliya wala uluwul himma yitte ju kawe ñu ne yitte ju kawe dafa nekk Euh, principe ci lislaam bu am solo boo xam ne daa mel ni euh, dara mu ne koo taxawal mu am solo ndere dafa ànd ak yitte ñu gis ne nag euh, léeg-léeg càmbar ko dana baax ngir nit ñi xam ko ndax li ñuy jëfandikoo baat bi ci ñu bari mooy ëpp xam gi ñu yitte nag euh, naka jekk ci alxuraanul karim sunu boroom soññee na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tam ci leeral gi muy leeral alxuraan ci sunna soññee na ci yitte nit ñu baax ñi tam koo ci gis fu mu yegg rek yitte moo ko fa yeggale am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne sax dañoo jàpp ne yitte euh, baat la boo xam ne Euh, euh, lu ci ëpp ngir nit ñi xamaat ko faw mu jaddit moo koy mën a joxe mu jaddit ab mu jaddit boo demee ca bilaadul xuraasaan fi ñuy wax euh, asi ci wet gi nga xam ne ay jullit lañ ci ñu mel ni ay Muhammad Iqbal wala Jamal Din al Afghani révolution yi ëpp solo yiñ def ginnaaw ba ñu jàngee ba noppi ba dem bitim réew ba ñibbisi bokk na ci seetlu yu ëpp yuñ seetlu dañu ne al aalamul islaami lii ñuy tudde monde islamique li tax ñu féete ni ginnaaw ci wàllu doxalinu àdduna moom dafa waxoon ne yitte ji moo tax maanaam baatu yitte moo leeragul ci al aalamul islaami moo tax bu ñuy xool wàllum avancement léeg-léeg duñu duñ duñ ci raw te ñoo ci war a raw ndax yàlla sunu boroom jàngal na leen ko yonent bi jàngal na ko nit ñu baax ñi ñëw nañ taj tajdiid baat boobu waaye ba tey léeg-léeg day des suñu ñëwee ci cosaanu fi ñuy balluloo ay àtte ci ci ci lislaam mooy alquraanul karim bi ci jiitu sunu boroom dafa kañ nit ñi nga xam ne euh, yittey àdduna mënu leen fàbbi ci dox seen diggante ak seen boroom lu ñu mën a nekk lu mu rëy rëy su seen diggante ak seen boroom jotee day mel ni loola amatul yàlla rek lañuy ñuy dëgmal yàlla la ñuy xool loolu yitte ju rëy moo koy def sunu boroom wax ne rijaalun laa tulhiihim tijaaratun wala bay an zikrillah loolu aw tagg la woo xam ne yàlla moo ko tagg ñi nga xam ne tudd yàlla bu jotee rekk fa lañ jëm moo tax aaya bi sax da cee toftal wa iqaami salaati wa itaa zakat kon lépp ci jaamu yàlla la jëm jaamu yàlla yitte moo koy def jaamu yàlla yitte moo koy def euh, ñooñu sunu boroom tagg foofu ñooñu la ñuy tuddee boroom yitte yu kawe yi boroom yitte yu kawe yi am na beneen aaya alxuraan boo xam ne dafa ñëw gën a feddali loolu sunu boroom wax ne minal mu'miniin rijaalun sadaqu maa ahadullaha aley am na ci gaañi ci nit ñi ñoo xam ne euh, euh, signature bi ñu signante ak seen boroom mooy nekkal ko ci kaw suuf dundal suuf wut xam-xam jëfe xam-xam bi dégg nga am na ci ñoo xam ne yàlla dimbali na leen ci seen yitte ba mosuñoo wàcc yoon woowu ba yoon woowu ci lañ tege ba jóge fi am na ci ñoo xam ne ñi ngi ci ñi ngi fi nekkendi di def loolu am na ñoo xam ne nag dégg nga euh, wax loolu mosuñu cee soppi benn araf waaye loolu mafhumul muxaalafa maanaam danga ciy dégg ne kon am na ñoo xam ne taxawuñ ni ñu war a taxawee taxawuñ ni ñu war a taxawee bu ñu ñëwee ci euh, sunna sallallahu alayhi wa sallam boo jàngee siiratu annabawiya da gis euh, lislaam bi muy doog a tàmbali nga xam ne da doon teg ay palan ay stratégie ngir yaatal lislaam loolu yitte ju rëy la lu ñu war a jàngat la te ci ñu ëpp ca ña ko defoon booba ay xay xale lañ maanaam ñoo xam ne seeni at bariwul mën nga cee jël misaal ku mel ni ku ñuy wax Mus'ab ibn Umayr ci ñi njëkkoon a gàddaay dem Xabasa Éthiopie rawale ji diine delsiwaat Màkka demaat ma Madinal Munawwara gàddaayaat ngir rawale diine loolu mooy yitte maanaam nit ki li nga xam ne pas-pasam la mu gëm ko da ko war a taxaw da ko war a jaral mu am taxawaay bu bu wér a taxawaay boo xam ne ku ko gis day xam ne kii taxaw na sunu boroom wax na ne saari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawatu wal ard uiddat lilmutaqin nañu njëkkante gaawantu nañu gaawantu kenn ku ci nekk am yéeney ki ci des du la jiitu nga am yéene ji ngir jëm ci njëgalu sunu boroom jëm ci ajjanaam ya te loolu li koy maye dara mënu koo maye lu dul yitte ju kawe mu mel ni bu ñu toppoon aayaat yi nga xam ne day woote yitte yu bari lay doon waaye buñ ci tuddee yenn dinañu wan fi nga xam ne foofu la alxuraan jëm ci yitte sunna naka noonu yonente bi lu mu wax rek mën nañ koo jëfandikoo ca jamono ja mën koo jëfandikoo ca loola ak leneen loolu lañuy wax ci usul ñi nga xam ne ñooy jàng cosaanu fiq dañu ne kéemtaan nekkul ci ki waral wax ji waaye kéemtaan li wala li ñu war a jàngee ci mbir mi mooy képp ku def la ko defoon na waxin joo xam ne ci wàllum joxe la jëm yonent bi bu waxee ne al yaddul ulya xayrun min al sufla loxo bu ne féete kaw moo gën loxo bu féete suuf ñi nga xam ne ñooy firi xadiis dañu koy firee loxo biy joxe ak loxo biy nangu waaye loolu lépp ay misaal la ak waxin li muy firiwaat mooy ki góorgóorlu ak ki nanguwut góor góorlu nga xam ne mën nga koo firi ay firi ni firin foo ci toll rek mën naa firiloo la ki nga xam ne moo góor góorlu ci mbiru diineem bu diine ji jotee ci mbiru àddunaam bu àdduna jotee te di ko def ngir jëmmi yàlla kooku munta bokk mukk ak ki nga xam ne dafa yaafuus du taxaw taxawaay bi mu war a taxaw moo xam ci yàlla la jëm moo xam ci àdduna la jëm ñoom ñaar duñu mas a yem mukk kon loolu tam xadis la boo xam ne mënees na koo jëfandikoo ci wàllu yitte ak ni mu amee solo ci lislaam suñu xoolee am si la yooyu misaal yi yu am solo la waaye mën nañ koo wàcce ba ci ci réew mi ñu gis euh, sunu mag ñi ni ñu jàmbaaree ci fexe ba euh, tey jii nit ñi mën a am jàmm mën a jaamu yàlla niñ ko bëggee te dara fëkku leen te dara këfu leen buñ ci jëlee misaal ku mel ni cheikhul xadim bi muy tàmbule yoon wi gis nga dafa ne yonente bi dane ko rabbi asxaabaka bil himma na nga yar nit ñi ci ite na nga leen yar ci ite yar nit ci itte nag kooku moom la ñuy tuddee al naaxiya al amaliya al naaxiyatu nga euh, euh, fil islaam maanaam islaam da cee am loo xam ne dañ koy def théorie di ko jàng ngir xam ko ndax mën nga koo jàng te doo ko mën a jëfee wala boo koy jëfee tam bu leerul ci yow nang koy jëfee du baax léegi nag wet gi nga xam ne moo yor pratique ci lislaam wet googu moo tudd himma pratique si lislaam moo tudd himma nga xam ne lislaam du ay wax kese du ay théorie kese waaye ay jëf la yu yu am solo yoo xam ne dafa am fu mu jëm loolu la ñuy tuddee ba tey himma yonente bi ne ko rabbi asxaabaka bil himma na nga yar nit ñi ci itte mu mel ni wax jooju rek mën naa nekk sirru taqaddum maanaam secret la ci avancement buñ ko jëlee jëfandikoo ko àdduna bi yëpp mën naa avancer ndax li manqué nit ñi waxoon naa la ko fële ci jamono jooju Jamal Din al Afghani ba mu demee bitim réew ba ñëwaat nee na seetlu na ne alam islaam yi yitte moo leen téye te jamono ja muy wax loolu ak jamono ji sëñ Touba nekkee fii ci njaareem sax daanaka boo xoolee benn jamono la mu mel ni eh, li ñuy tudde tajdid eh, tajdidu diin léeg-léeg sax Euh, ulama u tasawuf nee nañ mën nañ koo def ci ay gox yu fasantikoo ci àdduna bi lu ëpp benn mu mujaddid mën naa ñëwandoo ci àdduna bi ay yoonu yoon mën naa nekk ñeent juróom juróom benn kenn ku nekk di tajdiid fa mu féete waaye li am solo ginnaaw foofa lislaam moo fa ne fii tam lislaam moo fi ne dégg nga baatu himma bi ñoo ko bokk kon loolu jàngoro la joo xam ne war nañ ko xool euh, dégg nga jubbanti ko ba mu méngoo ak li taxoon ñooña di ko wax rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat ndax jàng moom théorie la te théorie rek doyul faaw mu ànd ak ak jëf soo xoolee ku mel ni cheikhul xadim ni mu rëddee yoon wi mu jëm ni mu ko rëddee ak ni mu ko défendre ak ni mu istighlaalul furas maanaam ni mu exploité occasion yi mu am ak stratégie yu am solo la loolu lépp himma la ndax stratégie l'islam bañu ko maanaam bu mbir nee nii ci sa kanam nga xool wan yoon moo gën a méngoo ngir egg fi nga jëm te du aay yoon woowu su fekkee ne du yoon wu yàlla aaya rek dégg danga da fa mën a jaar ba ba def li nga bëgg loolu la ñuy tuddee istixlaalul furas ñu gis sañ Tuuba loolu ni ko ci yàlla dimbalee ni mu ci réussiré kooku yitte la boo xoolee ni mu dimbulee doomu aadama yi nga xam ne da leen a xettali ci texee di li ci texe di mooy jël nit koo xam ne soo ko bàyyi woon ak boppam du xam fu muy jaar nga fexe ba téye loxoom fexe ba gindi ko di ko defloo dara donte xamul li muy def waaye yow mi ko koy loo xam nga ne lii baax na mu nekk ci ba yàgg bu gindi koo xam ne bu lii amutoon musiba am loolu ite moo koy def maanaam booy dimbali nit danga koy dimbali dimbali nu téye ci loxo bi ànd ak moom di dox bu ko xamul ci saas itam bu yàggee dana ko xam loolu tamit itte la nga xool li mu taalif ci ay téere ak ña ak jot gu ñàkk gi gi mu ko doon defee ngir dimbali nit ñi ci seen wàllu ngëm dimbali leen ci lislaam dimbali leen ci ni ñu war a rafetale ci wàllu jikko ak lépp ni mu ci taxaw taxawaay bu am solo boobu ak jamono ji mu ko doon defee ni mu xate ci moom loolu itte dëgg moo ko moo ko mën a def nga xool ni mu yare dongoom yi yar leen ci e, taqoo ak li ñuy tuddee laab taqoo ak jëf taqoo ak woyof loolu e, e, képp ku xamul maanaam yitte loolu dana la jaaxal waaye loolu dañ koy jëmbat suuxat ko ci doomu aadama dañ koy jëmbat suuxat ko ci doomu aadama ndax yàlla moom mooy def nit ñi li ñuy bari bari du ñu bokk dimension ci wàllu xel li ñuy bari bari du bokk dimension ci wàllu ay may ay mawaahib faaw ñenn ñi ñoom bu mbir yi leeree ci ñoom ñoom ñooy tane ñi ci des tée leen dimbali leen bu loolu amul ñu bari danañ texee di kon texeel sa bopp kese ne man daal euh, bu ma rawee baax na ñi ci des ku góorgóorlu ba raw baax na loolu ñàkk yitte la ci waxin itte dëgg-dëgg mooy fii ma yegg damay fexe ñeneen yegg si fi walla ñeneen romb ko ndax lu baax la te lu baax ku ko def man sanna sunnatan xasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ku wane aw yoon ba nit mën cee jaar ba gindiku lépp lu defati da ci am tuyaaba te du ko yàqal moom la muy am dara kon ku def safaan bi tamit da ngay gis ne loolu day daal di ñëwaat kon li ñu bëgg a wax foofu mooy mbokki jullit yi ñu xam ne yitte eh, dëgg-dëggi ngëm yàlla la képp koo xam ne yitteem des na na xoolaat ngëm yàllaam xool ngëm yàlla nag eh, waxuñu ko amul itte dafa génn ci diine dañuy wax ne Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne euh, salaasun man kunna fii wajada xalaawatal imaan am na ñetti mbir yoo xam ne képp ku xool sa bopp fekk ko ci dinga mos neexaayu ngëm yàlla loolu majaas la maanaam façon waxin la ndax ngëm yàlla mën naa am du lu ñuy lekk ba nit di ko mos di xam neexaay bi waaye ñenn ñi dañ koo firee ne mooy lislaam ju dëgër lay am ñetti mbir yoo xam ne boo ko càmbaree fekk ko ci sa bopp xamal ne am nga lislaam ju dëgër mooy nga bëgg yàlla bam leer na ne le yàlla moo la gënal sa bopp moo la gënal ñëpp yonente bi moo la gënal sa bopp moo la gënal ñëpp boo eggee ci niveau boobu xamal ne sa ngëm dëgër na loolu lay tuddee xalaawatul imaan ngëm gu neex boo eggee ci niveau boobu xamal si sa ngëm dëgër na bu fekkee ne yow bu ñu tuddee yàlla wala ñu tudd yonente bi doo am benn yëg-yëg ci ñoom wala da ngay gam-gamle sa bopp wala da ngay gamle gam-gamle leneen ak ñoom bu boobaa dañu ne kii kat ngëm na ndax dugg na ci lislaam ndax seede na waaye dañu ne fa imaanuhu naaqis ngëmam dafa des moo tax ci tawxid dañuy wax al iman yazidu wa yanqus gëm day dolli ko léeg-léeg gëm day rës day wàcc moo tax doomu aadama bi war nay càmbar boppam bu baax loolu ittee la fi mu ne nii di xool foo tolloon démb ak foo toll tey ci sa wàllu ngëm yàlla loolu yitte la loolu yitte la bokk na ci yim waxoon yonente bi day waral boo ko xoolee xamal ne sa ngëm dëgër na mooy looy bëgg rek nga bëgg ko ngir yàlla looy bañ nga bañ ko ngir yàlla boo gisoon nit koo xam ne nii melowum yor neexu la bul bañ jëmmi nit ki waaye bañal la muy def booy bëgg nit ki nang ko bëgg ngir moom rek mbindeef la dégg nga te bu mu nekk sentiment boo xam ne dafa am bakkan moo ci nekk wala leneen wala leneen waaye da nga koo bëgg rek ndax kii jullit la ndax kii ku baax la ndax kii doomu aadama la dégg nga yooyu ay am si la misaal yu bari la yoo xam ne lislaam indi na ko eh, ñu xam ne itte tam da cee bokk ci niñ ko jàngee mooy nit ki dafa war a xam ne àdduna yàlla bi mu ko bindee dara newu fi woon bi mu ko bindee liñ fi gis ci ay bâtiment gis ko fi ci ay eh, infrastructure gis ko ci lépp nit ñi ñoo ko fi def léegi nag loolu li mu lay jàngal mooy fii kat lu fi nekk dañ ko fee def lu fi nekk dañ ko fee def loolu day wax ak ñi nga xam ne dañuy doyloo li fi nekkoon te doo te duñ ci jéem a dolli dara doyloo li fi nekkoon lu baax la waaye foo toll war nga koy xool di xool loo ci mën a dolli ngir a gën a gën a rafet gën a baax loolu ite la fi mu ne nii am na ñoo xam ne dañu ne man liggéeyal nañ ma man kon jarul may liggéey defal nañ ma nàngam jarul ma koy def gàddul nañ ma nàngam kon jarul mooy sonn loolu sëñ bi ku koy wax eh, xelam des na lu baree baree bari yonent bi sallallahu alayhi wa ni mu daan jullee di ko jaamoo yàlla daan ko defee ay nawaafil ba euh, euh, euh, sayyidatuna Aïcha di di ko wax ne ko te ngaa dallu te noppalu tànk yi néewi dégg nga lu mu wax afala akunu abdan shakuran eh, dama koy sante yàlla nit kay mën nga koo gàddul sax dara waaye muy wut di ci dolli loolu lu am solo la loolu yitte moo koy def waaye day bëri nag léegi ci génération yi ñoo xam ne bu ñu leen warlulee dara ñoom duñu warlul seen bopp dara ba mën koo warlul keneen ki topp ci ñoom loolu dafa war a leer ci doomu aadama yi ñu xam ne itte mooy foo fekk dara war nga koo dolli waroo waroo doy loola kese li nga xam ne moo ñu manque ci sunu société yii nga xam ne ci la ñu nekk lu ci bëri nga xam ne wàllu avancement dëgg-dëgg léeg-léeg mu xaw a jafe walla développement boo xoolee li ñu dox suñu diggante ak loolu mooy yitte ju wàññiku nga xam ne baat boobu daal suñ ko jëloon kenn ku nekk xam ko di ci dox doy na révolution li ñu tudde révolution nga xam ne sawra dégg nga ijtimaaya la nit ñi buñ ci sukkandikoo fépp fu ñu bëgg a yegg danañ fa yegg ndax li wéy wéy na li nga xam ne am nañ ko wéy na li ñëwagul la ñuy xool te àdduna mi ngi fi te jógagu fi te kenn xamul kañ la fiy jóg mooy kenn ku ci nekk waroo yaafuus war ngaa am taxawaay war ngaa am taxawaay si àdduna bu benn nit waruta xeeb boppam ci lenn ci lu baax lu ci ne war na koo jéem am ci lum ci sof wala lum ci def ndax ñi nga xam ne amuñu yitte xamuñu li ñuy tuddee al awlawiyaat mooy àdduna dafa am ay awlawiyaat ay priorité priorité dafa am si àdduna lii mooy jiitu lii moo ciy topp lii moo ciy topp loolu ñiy jàngale yitte dañu ne nit ki bu amul loolu day mbëkk rek du xam fu mu jëm waaye nit day teg ay palang teg objectif daan ne fii ak nangam de nangam bëgg naa ko réaliser buñ ko weesoo bëgg naa nangam buñ ko weesoo bëgg naa nangam bëgg naa bindu téere sàngam bëgg naa def daara sàngam bëgg naa nangam ba bu ma ko mënul sax ña ko ña koy jéem ma ànd ak ñoom ci cofeel gi ak jàppale leen loolu itte la ba tey loolu ite ju am solo la yoo xam ne nit ñi war nañ cee bàyyi xel yitte ci boppam tam dafa bari ay melo ci lislaam bokk na ci melo yi mooy nit ki nay sàkku xam-xam bi ci jiitu mooy sàkku xam-xam ndax lislaam li mu indi xam-xam la te nit ki bu ko bëggee def te xamul fu mu koy jaar ak réer lay tudd ci lislaam réer ci lislaam mooy ki nga xam ne li mu bëgg a def li ko lislaam sant munu ko kooku la ñuy tuddee ku réer ci lislaam mën naa jàng leneen mën naa am xam-xam ci façon bu bari waaye eh, lii dox digganteem ak sunu boroom mu war koo jéem kémtu lay kàttanam war na koo jéem kémtu lay kàttanam ba fu ci yam moo xam ne fii la ci mën a yem loolu yitte moo koy def kon nit ki na na góorgóorlu digganteem ak boroomam na góor góorlu ci muñ ay coono dégg nga na góorlu ci sàkku xam-xam ndax lu metti la te loolu itte moo koy def moo xam ci mbiru diine yi nga xam ne nit ki moo ko jagoo moo koy moomal boppam bu mu ci xeeb dara na doon euh, làkk bi mu jàng bu dee français la jàng ñu jàngal ko ci li mu soxla bu dee wolof la jàng ñu jàngal ko ci li mu soxla bu dee arab ñu firil ko ci li mu soxla waaye na fexe rek ba xam ndax xam ngi moo am solo ndax jaaduwul si mag muy tëñëx tëñëxi tëñax tëñëxi ñàkk yitte la mooy koo xam ne jamono ni mu mel bu njëkk ba sax monoon ngaa wax waaye léegi ni mu mel ci xam ni mu jàppandee ak ni mu yombee muy kër këri ci dara te xamul loolu nu mu demee loolu àdduna weesu na ko kon bu ñuy wax yitte war naa feeñ ci côté boobu maanaam li ñuy wax sàkku xam-xam bu baax a baax donte day dem ci majalis yi dégg nga bu demee ñu waxal ko fa lu tolloo fukki minute ci lu koy jariñ yitte la baax na lu am solo la yàlla sunu boroom dafa wax ne innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi ko gën a ragal mooy ñi ko gën a xam loolu nag gën a xam nag mooy ñi ko gën a jéem a xam booy jéem di xam-xam lu day tax li ngay def sa diggante ak moom day gën a leer ci yow boo ko defee loolu day mën a ànd ci déggin woyof woo xam ne dangay xam ne jàng xam-xam mënta ñàkk ci diine mu waxaat ne yarfau llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat ñi nga xam ne sax jox nañ leen xam-xam ay darajaat lañ kenn ku ci nekk li mu am ci yitte rek la ko suñ borom di jox wali kullin darajatun mimma amilu moo tax euh, euh, euh, lu baax amul fu muy yem foo xam ne danaa nit ki danaan bu ma fa yeggee léegi damay noppalu ndax egg naa ci daytal ba loolu amul ci lu baax nit ki day dem rek ndax ay darajaat la yu bari yoo xam ne kenn mënu koo làq ba mu jeex am na ñoo xam ne si ndaw ñi sama classe gi baax na ci léeg-léeg tuuti la ñuy yër dégg nga defe ne yeggal nañ njobbaxtalu xam-xam ndax xam nga am na euh, lu ñu daan wax ci sunu baatu wolof bu ñu nee diw dafa jeexal ay téere xam nga jeexal téere waxin wolof la waaye jeexal téere kay daanaka munta ne ndax nit ki saa yu xëyee mën naa xam lu bees lu mu xamutoon kon kenn du jeexal ay téere waaye loolu waxinu wolof la dégg nga woo xam ne dafa yóbbaale maanaa moo xam ne leerut ci ñu koy dégg bu ko defee léeg-léeg nga gis koo xam ne tuuti ci ay xadis wala tuuti ci alxuraan wala nag daal di nekk kilifa boppam mën na cee boole sax di tàmbulee xaw a seex dégg nga di di ubbee ci loo xam ne dara leeru ko ci kon yitte mooy mu bàyyi fi yëfi àdduna yi dem fexee xam bu xamee mën naa am sax doo day far seexlu loola mu doon def dootu ko bëgg dootul neex fi moom ndax bari na ay jotaay yoo xam ne ka koy def mu mel ni ku ci yëg bànneex am na ku koy xool da di xeeb loola kon dangay xam ne nit ñi yemuñu te loolu li koy indi secret bi lenn la mooy ak xam ak yitte bokk na ci yooyu noonu ci itte mooy koo mën a laaya biire ngir yàlla nga laaya biire ko dimbali ko bu ci xeeb dara bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne nga fexe ba gin gindi benn nit moo gën àdduna ak li ci biiram loolu loolu moo tax boo amee foo egg dangay ngay fexe dimbali ñeneen ñoom it ñu egg foofu loolu la ñuy tuddee an nasiha doo xoolee bind sëriñ tuubaa yi sëñ tuubaa da koy wax daat nii ilal xatti nasihatu lil wara li wajihi allazi xaadali ajran wa asafa man li tax may bind ak a jàngale fu ma toll damay laaya biire nit ñi dama leen di laaya biire dama leen a yërëm yërëm gi ma leen yërëm moo tax mënumaa noppalu ndax bu doon jëmmam ja kenn waxaalewoo ko waaye nag dimbali nit ñi ak kenn ku ne xam la mu war a xam moo tax foo ma fekk may sonn daat nii ak ilal xatti nasiha an nasihatu lil wara ngir ngir jëmmi yàlla li wajhi lazi xaadali ajran ndax yàlla rek moo am pay loolu jar naa leeral ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy yëngutu dégg nga di toppe tamit ñu xam loolu mi ngi fi dégg nga sëñ Touba daan def ak nit ñu baax ñu bari sax mooy fexe ba dimbali société yi dimbali doomu aadama yi ñu xettali ko te dimbali bi dara gënu ci gaaw fexe bañ xam ndax bu ñu xamee rek li nga bëggoon ci ñoom danga ko am bu ñu xamee te gindi ko li nga bëggoon ci ñoom danga nga ko am bokk na ci feeñ feeñu yitte mooy di jaamu yàlla ci koor yi ak taxawaay yi ak jub xocc ak ak ak bëgg bañ a ragal alaaxira ndax yàlla dafa mooñ jullit mu am pas bañ a ragal fi mu jëm loolu pas lay doon ndax pas bi mooy da ngay xam ne àdduna ak dund la waaye dund gu ñàkk solo la buñ ko méngalee ak la am fële loolu muy ñàkk solo nag waxin la ndax lay baax fële fii lañ koy defare fii lañ koy liggéeye kon liñ ci jublu mooy doomu aadama bi bu nekkee fii ci àdduna yitteem war na koo may benn ittee àdduna lu mën a mel bu mu ko dox digganteem ak ak boroomam bu mu dox digganteem ak boroomam ndax bàyyi àdduna suñ ko waxee loolu lañ ci jublu bàyyi àdduna kenn du bàyyi àdduna waaye liñ ci jublu mooy nga taxaw taxawaay boo xam ne àdduna doo ko def sa lépp saxaabatul kiram bu ñu daan ñaan dañu daan wax euh, yàlla ne ko wala tajaalid dunya akbara hammina maanaam bul jël àdduna def def ko muy sunu yitte kese am na ñoo xam ne àdduna rek mooy seen yitte koo xam ne àdduna rek mooy yitteem ak lu mën a réaliser si àdduna kooku amul himma ndax himma baat bi dafa ijaab li ñuy wax ijaab mooy baat bi dafa am positif positif bi mooy faaw da ngay yëngatu ci àdduna waaye da nga ciy jublu jëmmi sunu borom bu ko defee nga mën cee am ñaar yëpp li yàlla di wax ne na nga taxaw dégg nga ci àdduna bu baax waaye eh, na nga jëm ci yàlla bu baax waaye bu mu tax nga bàyyi cër bi ma la cëral fii ci àdduna noonu nga koy mën a déggee mooy wala tajali dunya akbara hammina àdduna bu ko def muy sa yitte jépp-jépp xaalal xasan dafa am ku baax ci nitu yàlla yi mu wax ibaara bu am solo mu ne képp ku xëccoog yow àdduna mu ne eh, eh, bàyyee ko ko waaye ku xëccook yow sa diine nag jonganteel ak moom noonu la koy waxe képp kuy xëccook yow lu baax nee na jonganteel ak moom wa fi zalika fal yatanafasil mutanafisun waaye ku xëcceeg yow àdduna nag nee na bàyyee ko ko xool bàyyee ko ko xool kon bokk na ci feeñ-feeñ yooyu ñeenteel bi mooy li ñuy tudde jihaadu nafs mooy nit ki xeex ak bakkanam ndax xeex ak bakkankat yitte moo koy def fi mu ne nii ndax yi nga xam ne doomu aadama bëgg na ko yépp lu ci ëpp ci bakkan lay jaar mais bu fexee ba not bakkanam ba not bakkanam daanaka not na mboolem xeetu bànneex ndax yépp bakkan mooy bunt bi nga xam ne ci lay jaar kon itte mooy nga xeex ak sa bakkan Euh, euh, bu baax a baax xañ ko bànneex yi dëgg mu dëgmal sunu boroom nga nga yar ko ci loolu ba mu dem ba ba ba ba nekk ko te dootoo ci sol